asalaamaaleykum gars yi bëgg naa leen ba ay ngi jàmm man maa ngi jàmm baax alhamdulilah tey dama leen di wan quelques paramètres ci whatsapp delta vidéo bee jàll dama leen wanoon application bi kese mais tey vidéo bii dama leen di wan quelques paramètres ci whatsapp delta yi comme nga lire statut jàmbur te doo xam ne lire nga ko wala nga wala mu supprimer STM nga gis ko wala mu envoyé le message supprimer ko nga gis ko wala mu envoyé le message nga liir ko moom du xam ne lire nga ko ak yeneen ak yeneen ci biir whatsapp delta whatsapp delta bi nag moo mook whatsapp gb ñoo yooyu yëpp am na ci whatsapp gb defar naa ci vidéo mais tey dama ciy jaaraat rek ku télécharger gul whatsapp delta lien bi naa ko def ci description vidéo bi tamit balaa ñuy commencer bu leen fàtte like vidéo yi di commentaire di wax seen xalaat ci commentaire yi mooy tax youtube di gën a tasun ay vidéo pour ñeneen ñi mën koo gis di ci jariñu kon ñu ouvrir whatsapp delta WhatsApp Delta bi moo nekk nii instant bi amaguma benn discussion léegi dañuy jël benn tour ma won leen ci biir discussion yi ñu commencé ci biir discussion yi yàgg ngay waxal léegi xaar ma jël benn tour léegi ci jël naa benn tour léegi boo dee audio comme boo koy doog a télécharger boo dee audio da lay laaj ay autorisation comme boo bësee touche audio bi te nga bës autoriser léegi nga bës bi day dem léegi moo leen photo bi tamit parce que da lay laaj autorisation nga autorisé ko léegi instant bi autorisé nga yëpp léegi nga ñëw ci discussion yi comme nga ni ça va gis ngeen li ma leen doon wax ci vidéo bi comme da koy traduire ci français wala anglais yeneen xool ngeen def ko français comme ma bind moo moo anglais ma bind good ma def nii bës traduction bi gis ngeen bon la def comme ma bind bonsoir ma bëgg bonsoir bi nekk anglais damay bësaat tradition bi ma ñëw def ko english léegi mu ni good evening gis ngeen façon comme boo bindee français bëgg koo def anglais na nga koy def anglais wala nga bind anglais bëgg koo def français na koy def français nii la ah, application di demee as léegi ñu ñëw ci paramètre whatsapp delta yi comme nga bëgg duggal dugal statut boo xam ëpp na 30 secondes wala nga bëgg wala nga lire statut jaamu te du xamni lire nga ko ak yenen ci biir paramètre whatsapp delta bi léegi dañuy dugg paramètre bu démé paramètre ngeen ñëw ci fi ñu def ngeen da ngeen di glisser ba ci suuf fi mu def mais moy privacy and security ngeen ñëw ci mais bu ngeen ñëwé ci mais ngeen ñëw ci comme fini ngeen ñëw ci who call me kan mo lay wo léegi ngeen dugg ci xukaal mi première bi mooy ñëpp ñoo lay woo deuxième bi mooy mes contacts sa ay contacts kese troisième bi mooy say contacts sauf say contact ak am nga tànn ñoo xam ni du la ci woo quatrième bi mooy say euh, nga sélectionné contacts yi lay woo cinquième bi mooy personne kenn du la woo léegi nga génnaat yeneen tànn ban façon ngeen koy def léegi nga génnaat ñëw ci fi mu def estati fi mu def hit view estati mooy comme da ngay lire esthéti jambour té mom du xamni ni bu ko bo diké whatsapp delta da koy cocher automatiquement bo diké di nga fekk mu cocher ko bo télécharger whatsapp delta rek whatsapp delta cocher na la loolu jërul bu la nexé mën nga ko baña laal ni lay mel boo dikkee nag fekkoo nga fekk whatsapp delta cocher wuko ko da nga koy cocher comme bo diké fekk ko nii da nga koy cocher deuxième bi tamit moy comme ça bu dugalee estati supprimer ko da nga koy gis bo diké bu la nexé mën nga ko cocher bu la nexé tamit mën nga ko baña cocher ngén cocher ko ngeen ñëw ci chat mooy message bu ngeen dikkee ci chat mooy comme ça message ku la envoyé message supprimer ko da nga koy gis ngeen coché ko léegi après ngeen ñëw ci contact bu ngeen ñëwee contact ma supprimer ma di ko bu ngeen ñëwee contact première bi mooy it bleu comme ça mooy bu affaire bu bi moom du xam du gis affaire bi bleu bi ba xam liir nga message wala liiroo ngeen coché ko première bi ngeen di coché deuxième bi bu leen ko coché deuxième bi ko laal après ngeen mooy comme ça audio boo ko dee envoyé audio comme bële bi ci kaw mooy affaire bu bële bi boo bindee boo dee bind envoyé ko écriture comme ngeen envoyé ko message boo xam da nga koo bind moom du gis affaire bu bële bi ba xam liir nga message bi la envoyé comme troisième bi mooy microphone comme audio tamit comme première bi ni mu mel troisième bi mooy comme bu envoyé audio nga liir ko du xam ni liir nga ko quatrième bi tamit mooy bu dee comme ça boo dee tàppee di ko tontu moom du xam ni yaa ngi koy tontu. mais tamit moom tamit bu la dee tontu doo xam ne yaa ngi koy tontu boo ko kosee bu la neexee nga kose ko bu la neexee mooy boo ko dee audio comme dee envoyé message di tàppe léegi bu la neexee ngeen kose ko bu la neexee ngeen bañ koo kose léegi man xaa mu def ok bañ koo kose léegi mu ñëw ci groupe bi ngeen def la même comme ni ngeen def bi yenee tànn benn bi la yenee tànn ban ngeen ciy def ñu tànn microphone ak beneen bi yenee tànn tamit bu la neexee comme bu dee bind nga xam ko ak mom tamit bo dee bind mom du ci xam dara yéen ñep euh, bu leen neexee ngeen tapé ko bu leen neexee ngeen bañ ko jël leen ngeen bës oké après ngeen ñew ngeen génnaat bu ngeen génnee ngeen dik home screen boo ñëwee home screen nga ñew ba ci suuf fi mu def statique comme bo duggé home screen ci suufu comme suufu suufu privacy and security. ngeen ñew home screen ngeen dem ba ci suuf fi mu def statique fi mu def statique bo diké statique nga ñew ci suufa suuf ngeen cinq minutes estati fii mu ni da ngay dugal estati boo xam ni ëpp na trente secondes estati boo xam ni dina egg cinq minutes ngeen coché ko léegi fii mooy comme boo dugalee estati rek moom dañ comme boo dugalee estati bu ëpp trente secondes da koy gis léegi trente secondes day estati boo xam day ëpp trente secondes léegi ngeen ñëw ba ci suuf paramètres général yoo xam ni whatsapp delta yoo xam da ngeen ko war a xam laay wane fii beneen vidéo spécial naa leen wan paramètres yoo xam ni da ngay yeneen paramètres yoo xam ne day rafetal sa whatsapp delta ak yeneen ak yeneen comme yeneen yoo xam ni day jox sa taar sa whatsapp delta comme boo defee thème thème bi neexu la mën nga ko modifier waat thème bi tatu sensé nga modifier ko beneen vidéo spécial naa leen wan nan ngeen koy defee léegi ngeen ñëw ngeen génn ci mais bu ngeen génnee ci mais ngeen ñëw style look and feel ngeen ba style look and feel fii da ngay ñëw koom bi ci kaw mooy whatsapp normal deuxième bi mooy boo bëggee am whatsappu iphone da nga koy télécharger boo ko télécharger ba mu ñëw da ngay bës téléchargement bi bu téléchargement bi ñëwee whatsappu iphone lay indi comme ñu bëgg whatsappu iphone am na beneen whatsapp tamit bu tudd whatsapp iphone boobu spécial comme iphone la comme whatsapp delta bi beneen whatsapp bu bees la tamit dinaa def vidéo spécial ci whatsapp boobu léegi ngeen télécharger ngeen xaar données yi egg léegi beneen bi mooy woon beneen bi mooy comme whatsapp bu mel ni facebook bi mooy android zero beneen bi mooy système bi léegi mën ngeen ko bayyi ñoon après ngeen ñëw font moy écriture nga bëgg a sa écriture comme sa écriture whatsapp delta ni mu mel yépp defoon na ci whatsapp gb bi bo diké ni écriture yene tan ban façon mo leen neex ci écriture yépp ay écriture bari la yene tan ban façon mo leen ci neex ngeen tan façon bu leen neex après ngeen ñëw ci deuxième bi lancer écrit eh, icône comme sa icône whatsapp bo bëggé cacher sa whatsapp amna comme man city nga bëgg ko cacher comme ku dik du gis sa whatsapp delta bi comme du ma xam lii ndax whatsapp la wala dara la application football la koy teg wala dara wala ngeen change icône bi def ci zone verte rouge blanc yeneen xool ban façon ngeen bëgg gisoo Milan bi yeneen xool Arsenal yeneen xool ban façon ngeen bëgg Chelsea gisoo comme ñoo xam ne dañoo bëgg a cacher seen whatsapp kenn bañ a xam ni lii whatsapp la wala dara la gisoo Barça Real am na équipe yëpp léegi ñu ñëw ci troisième bi bu ndikkee ci troisième bi mooy notification yi comme notification yi nekk ci kaw ni muy mel bu leen neexee ngeen def ko blanc white bu leen neexee ngeen def ko black noir bu leen neexee ngeen def ko bleu bleu red rouge green euh, vert yéenay xool ban façon yellow zone yeneen xool ban façon moo leen neex ngeen def ko ci gisoo yëpp ay kii la comme notification bi ci kaw yéenay xool ban façon ngeen bëgg mu dikkee ko léegi ñu génnaat ñëw ci ñëw ci euh, ñëw ci conversation screen léegi bu ñëwee ci am conversation screen ngeen def action baar comme action baar bi mooy comme sa en ligne beeg yooyu noonu comme boo dikkee ni action baar bi fii dafa noir yéenay xool ban couleur ngeen ci def mën ngeen koo bañ laal léegi fii mu ni ngeen comme ça kii bi nii ngeen coché ko mën ngeen koo bañ a laal mën ngeen koo bañ a coché comme fii nii troisième mooy da ngay nëbb sa photo ci ki ngay waxal comme ça ko boo dee wax a kenn da nëbb photo comme ngay wax ak kenn nga bañ ki nga dendal gis photo ki ngay waxal bu la neexee mën nga koo nëbb bu la neexee mën nga koo bañ a nëbb léegi boo dikkee fii bi tamit mën nga koo nëbb boo dee wax a nëbb turu bi tamit bouton bi lay woo mooy ñi lay woo mën nga koo nëbb tamit comme parfois da juum laal bouton bi lay woo mu dem te doo xam fan nga koy indiwaate fii nga koy coché activé wala nga désactivé mën nga koo nëbb tamit léegi boo dikkee fii disable contact statique mooy lii affiché fii ci suuf comme turam description lii affiché fii ci suuf mën nga koo coché kase mën nga koo bañ a kase tamit mooy li muy bind ci suuf mën nga koo caché mën nga koo bañ a kase léegi fii mooy comme affaire bi ci suuf couleur bi ni muy mel léegi après ngeen génn ngeen génnee ngeen ñëw blue and fii boo dikkee boo defee thème bu la neexul mën nga koo changer boo dikkee bulu antique da ngay bës comme ça ni mu mel nii yéenay xool façon bu leen comme ni mu mel nii comme boo dee wax ak kenn ni muy comme fii ni mu mel yéenay changer xool couleur bu leen neex yéenay xool gisoo yéenay xool changer boo defee beneen thème da koy changer boppam boo boo ko nag la thème bi defal da ngay ñëw fii tic style ngeen changer ko def fi bu leen neex bu leen neex ngeen def fi Google yéenay xool bu leen neex bu iPhone bi iOS iPhone bi nii lay mel. gisoo bu iPhone bi moo nekk nii yéenay xool ban façon moo leen neex gisoo ñu def ko bi mu nekkoon par défaut bi léegi après mooy bundle style comme style bi ni muy mel comme affaire bi fii fii ni muy mel ni affaire bi mel ni muy mel nii après bu leen neexee ngeen changé ko def ci rouge bi comme ni mu mel nii côté bi ni mu féete gisoo côté bi côté bii la féete première bi côté bële côté bële la féeroon bii nii la def yaatu bu neexee ngeen changé ko def ko fii bii nii gisoo ni mel bu la neexee ngeen changé ko euh, def ko bi gisoo yéenay tànn ban façon moo leen ci neex gisoo ni mu mel nii côté bi yéenay xool ban façon moo leen neex léegi ñu def ko par comme ni mu mel whatsapp ni muy mel léegi bu ngeen bëggee réyaay bi tamit fii mooy réyaay bi réyaay bi ngeen bëggee mu rëy gisoo rëy na ngeen wàññi ko ba fi mu tolloon yeneen xool ban kii moo leen neex léegi ngeen ñëw ci couleur yi ngeen bës ko nii comme bii day blanc ki lay ki la message day blanc sa message yow day sa message yow day euh, day noir legui xama dindi bi ma juum def ko def ko par defo bi ko deuxième bi tamit boko ko coché ni mom tamit ki bi ci ginnaw day blanc ngeen désactiver ko defo ci photo legui troisième bi tamit mën ngeen ko baña laal mën ngeen ko bayyi non après ngeen génn yeneen yi ay couleur la mën ngeen ko baña laal après ngeen génn dem ci pic bu ngeen pic fii mën ngeen fee bañ a laal dara après ngeen génn ñëw ci conversation entre style léegi fii mooy comme ça sa conversation boo defee thème comme ojo bi fi muy nekk ak fi ngay envoyé photo wala localisation wala dara fii mooy fi ngay envoyé sticker yi ak enjoy léegi boo ko bëggee changer comme boo defee beneen thème ni mu mel neexu la da ñëw conversation entre style ngeen dikk conversation entre style ngeen def ko façon bu leen neex am na yoga am na iPhone gisoo iPhone 11 bi gisoo ni mu mel ngeen def bu leen neexee ngeen bàyyi ko iPhone 11 bi Telegram iPhone bi ah, Telegram comme ñi am Telegram si ni muy mel comme ñi am iPhone am Telegram ni muy mel la neexee tamit ngeen changer ko def ko iPhone 14 bi gisoo ni mu mel bu leen neexee ngeen changer ko def ko lu leen neex léegi ñun ñu bàyyi ko iPhone fi euh, mu nekkoon stock comme normal bi whatsapp bi di wàccuwaale léegi fii tamit da ngay changer couleur yi bu lee couleur bi neexul ci digg bi nii bu la neexul da nga koy changer yëpp ay couleur mais couleur bi mën ngeen koo bàyyi noonu comme couleur bi mu wàccuwaale ci thème bu la neex léegi ñu génnaat ñëw ci boo ngeen ñëw ci fond d'écran boo dikkee fond d'écran mooy sa discussion day transparent comme ça sa discussion du am benn benn photo wala dara day transparent photo bi nga def ci ginnaaw moo fay nekk comme du am benn photo léegi ngeen coché ko beneen bi tamit tamit costume walpa ngeen coché ko tamit boobu tamit euh, day comme sa description yi mooy sa description photo bi tamit photo profil bi day transparent mën ngeen koo bàyyi noonu mën ngeen ko coché ñett yi mën ngeen ko bañ a coché léegi ñu ñëw ci translate option setting paramètre langage bi léegi fii bu dikkee da ngeen koy changé def ki ngeen coché ko def ci français comme euh, en ligne yeeg yi muy dikkee comme bu dee bind quelqu'un en ligne online lay def mën ngeen ko changer def ko français muy def en ligne comme muy def aujourd'hui comme BD def tomorrow que ngeen def en ligne boo defee en ligne euh, français après ngeen ñëwaat ci deuxième bi mooy euh, mooy comme ça tur beeg euh, ba xam ban kañ la gëj a nekk en ligne ak yooyu ngeen changer ko def ko français tamit léegi boo ko defee français application bi francais lay doon léegi ñu génnaat ci mais ñëw ci ba génn ci euh, génn ci paramètre après ñu delluwaat ci paramètres yi comme boo dee def tem thème bi may def bu leen neexee lien bi mu ngi ci description vidéo bi léegi ñu génnaat demaat ci paramètres dem ci tem beneen façon bii dama koo tëb léegi ngeen ñëw ci tem delta thème store beneen vidéo bee jàll defoon naa ci vidéo ngeen bës delta thème store après ngeen ñëw ci appli vidéo bee jàll def naa ci vidéo ku amagul whatsapp delta demal nga télécharge ko lien bi tamit naa ko def ci description vidéo bi léegi ngeen ñëw ci download téléchargement ngeen ñëwee ci download ngeen tànn thème bi ngeen ciy def comme ñun ñu tànn thème bi ñu tànn thème bi léegi ñu tànn ko léegi boo ko tànnee thème bi gisoo mooy nekk nii thème bi tamit lien bi mu ngi ci description vidéo bi gisoo thème baa ngi nii thème baa ngi nii ku bëgg thème bi tamit lien bi mu ngi ci description vidéo bi comme boo euh, ñu dem changer waat thème bi defaat ci beneen thème comme boo bëggee changer waat thème bi da ngay dugaat foofu bësaat appli bësaat download téléchargement bësaat thème bi nga ko bëgg a def nga defaat beneen thème bu la neex comme ñu ñu tànn bii nii comme ñu tan dem bi dem bi tamit defon na ci eh, lien bi tamit boko bëggé mi ngi description vidéo bi dem bi ku bëgg lien bi mi ngi description vidéo légui ñu wat ci paramètres ci soufu Delta Store bo ñëwé ci soufu Delta Store moy da ngay supprimer tem biñ ci def comme démé bu gëto ben tem nek sa eh, WhatsApp da ngay bëss reste préférence comme tem biñ ci def day supprimer wu automatiquement légui ngeen bëss OK bu ngeen bësee ok delta whatsapp day redémarrer bu redémarrer ci soo amatul benn thème blanc na comme bu comme ni mel boo koy doog a télécharger lay mel léegi ñëw ci à euh, euh, liste animation comme bu dikkee paramètres da dikk list animation fii boo dikkee nga tànn def ko wave wala bu la neex boo dikkee nga dem def ko euh, slide comme ni muy def nii comme boo dee dem comme boo dee glisser sa loxo ni muy mel nii comme bo dee set contact yi nek suuf ni ngay glisser sa loxo ni mi melni non lay changer léegi ñu ñew ci li tax ma ñëkke yee ndax moy paramètre général ngeen ñew ci ngeen dik def ko wave moy ni mi melni ni melni yene xol ban façon mo len neex yëpp façon bu nek bokul ak morom façon yi rafet la léegi ñu bayiko ni mu mel léegi li moo nekkoon vidéo tey bi bu fekkee vidéo bi neex na la bul fàtte like vidéo bi lu am importance la ci chaîne bi bu leen fàtte like vidéo bi partage vidéo bi kon gars yi bu beneen vidéo incha allah